min zulumaati lwahmi wa akrimna bi nuuril fahmi waftax calayna bi maxrifatil cilmi waxasin axlaaqana bilxilmi wa lana abwaaba fadlika wansur alayna xazaa'ina raxmatika yaa arxamar raximin yaa rabbal aalamiin mbokk yi bàyyi xel ci Sud FM seen rajo assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bi ñu santee suñu boroom subhaanahu wa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 ñoo ngi jaajëfal soppe almisbaax yépp ñi ne ci biir réew mi ak ñi nekk bitim réew kóllëre yeeg am di jàmm yi nga xam ne saa yi ñu tàmbalee ñu tàmbale ànd ak ñun jotaay bi ak ñi nga xam ne luñ nekk ñu nekk ca joxoñ buñ joxoñ tamuy mayee tiyaaba it kenn du leen ci jiitu di jaajëfal bu baax suñu mbokkum daara sëñ Muhammad Ka ñaan borom bi subhanahu wa taala mu fay ko te defal ko tawfiix ak mboolem ñi nga xam ne ñu ngi ñuy bàyyi xel tey bàyyi xel jotaay bi démb maa ngi doon waxtaane lu jëm ci wàllu kër yi ba nekkoon ci lu aju ci dépense ak yi nga xam ne moo ci aju di loo xam ne ci jëflante la bokk waaye ak jaamu yàlla yàlla itam ndax bariwaana yoo xam ne day war a am ci kër gi te itam ñu di ko jëfandikoo te mënta ñàkk bu fekkee ci suñ dëkkuwaay yi ci taax yi la léeg mu doon yoo xam ne dañuy wax dépense boolewaale ci dëkkuwaay bi ci boppam di location bi xam nga ne moos góor gi lañ wax ne ko na dëkkal soxnaam kon loolu ci gàllu ci aw loosam la bokk taxu ko yomb di waaye li gàllu ci aw ci aw loosam la bokk bu ko ca jigéen ja dimbulee def na lu rafet waaye gàlluñ ko ci loosam muy loo xam ne lu mënta ñàkk la bu ko ca dimbulee nag baax na léeg ñu dem ci yeneeni aada ak yeneeni réew yeneeni doxalin yoo xam ne mën naa wuute ak doxalinu lislaam yi nga xam ne bu boobaa cotiser lay doon dañuy cotiser def nangam waaye bu dee ci kër goo xam ne ba tey këru jullit la gu ñuy tënk ci njàng mi buñ ko waxtaanee ba juboo lislaam du leen wax bu leen ko fi defee maanaam soxna si ne man naay fay location bi yow ngay fay jànq bi <laughs> ngay fay jànq bi day am ci kër yi bu ko defee bu facture yi ñëwee ñu xool nu ñu def wala seereel lii ma seereel lii nga xam ne dañoo bokk waxtaane ko yooyu yëpp ci yu rafet la lu dagan la lu dagan la waaye góor daal moom bu ko manee nay dundal njabootam loolu la lislaam jàngale dëkkalal sa soxna fa nga dëkk ca nanga ko mane waaye war-war yi moom yow la war mooy dundam yi nga xam ne moom la aajo woo ci mënta ñàkk ci dundum nit ci yi nga xam ne nit mënu koo ñàkk ci ak dundam loolu nag euh, dañ koy wax ci nit ki def ko ci njekk maanaam loolu ñu fi doon wax naan da ngeen ma koy ñaan ci njekk ci njekk nag waaye njekk gi mooy mu def ko ci nam gën a rafete mu def ko ci nam gën a rafete mu def ko ci nam gën a rafete ca na ko nit ña xamee ca jamono jooja nañu koy dunde maanaam fii ñu toll nii tey boo bëggoon a joxe dépense bu añ ba kookal ci dépense boo xamante ne méngoo wuta ak jamono ji waaye nga ne loolu la fi maam yi doon def déedéet dañoo bëgg mu doon loo xam ne daa méngoog jamono joojee na ñuy dunde boo ko mënee waaye méngoog dëkk ba na ñuy dunde waaye méngoog xaal bi nga xam ne moom la jëkkër ji nekk ci jamonoy yaatule ak jamonoy xat-xat ndax li yunfiq su saatin min saatihi wa man qudira alayhi risqahu fal yunfiq mimma ataahu llah lu jàngoon naa aay jii démb borom bi ne joxuma teguma nit laajuma nit lu dul li ma ko jox laa yukallifu llahu nafsan illa ma ataaha teguma nit lu dul lim man teguma nit su fekkee nag borom kër bi moom man naa joxe waaye du joxe lu doy ndax nay moo tax nay ndax ñaari yëpp benn baaxu ci boroom kër boo xam ne daa xër a xër a xër bay yàq joxe loo xam ne ak yàq la lislaam bëggu ko waaye ngott a ngott ba ngott gi yóbbu la ci nay it lislaam dëgganalu ko li lay woon ne dépense boobu góor la war dañuy wax ne sax dagan na dagan na ci soxna si bu boobaa mu jël ci alali jëkkëram kemtalaayal li nga xam ne moom lañ soxlawoo kemtalaayal li nga xam ne moom la moom la moom lañ soxlawoo ci lu dul ndigalul jëkkër ji waaye nag mu def ko ci njekk bil maaruufi bañ koo def ci anamuk yàq wala anamuk lu dul farata anamuk lu dul farata uh, imaam Buxaari ak muslim ci seen xadis bi nga xam ne Abu Daawuda indi na ko Nasaayi indi ko imaam Ahmad indi ko mu bokk ci xadis yi nga xam ne sayyidatuna Aïcha radiyallahu anha moo ko nettali nee na jigéen ju ñuy wax hind hind nekkoon jabari Abu Sufyaan dafa wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko yow mi yàlla yónni ci ñun Abu Sufyaan de góor la goo xam ne misaal góor gu nay la wala góor gu dëgër loxo la goo xamante ne moom mu jox la lu doy jafe na lool du ma jox mukk loo xam ne dana ma doy maa xale yi maanaam dépense bi day tuuti lool waaw lu dut ne dama ginnaaw rek jël ci moom te du ko yëg te du ko yëg <laughs> bu fekkoon du ci anam jii dañ ñaan mm, dama ko sàcc waaye damaa ginnaaw rek jël ci moom lu ma def ci cin li te du ko yëg yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko jëlal li la doy yaag say doom waaye nag nga jël ko ci nga jël nga jël ci njekk maanaam maanaam nga def ko ci nam gën a rafete cënam gën a rafete bul ko gaañ fi mu ne jëkkër ju nay mën naa tax ñuy làmbi poosam bu ko summeeg bu summee ay yéreem ak lu teg ñu koppatu kook di xëcc ay weccetam bu dul jigéen joo xam ne dara doyu ko am na jigéen ñoo xam ne moom ab banque sax boo leen ko joxoon ci suba gi bu ngoonee boo leen ko laajee fekk ñu saax-saaxee ko waaw nañ ma baal waaye bu fekkente ne koo xam ne farata lay def moom ku jigéen ki ku góor ki itam di def farata léeg-léeg nga joxe ba noppi yëg ne la nga joxe woon jeexut ñu xamal la ne jeexut waaw léeg nga joxe ba noppi yëg ne la nga joxe woon jeexut ñu xamal la ne jeexut yooyu bunt bu yaatoo yaatu la bunt bu yaatoo yaatu la ci diggante eh, borom kër yi ak soxna yi ak li nga xam ne moo aju ci dépense maa ngi ciy waxtaan ak sama mbokkum jaxate male sëñ Saaliwu jaxate ci tomb bi mu ne Oustaz Alioune Sall bu mu waxee ne na soxna yi di am téléphone am na soxna soo xam ne daal laaj borom këram téléphone ba na a seer ca téléphone ya ca saasa ma ne ko waaw léeg lislaam jox leen loo xam ne ñoo ko moom jox leen loo xam ne ñoo ko moom waaye buñ ko laajee dootu neex waaw ko laajee dootu neex liñ la war a jox daal nañ la ko jox li nga war a def na nga ko def bu ko defee rôle yi tolloo te liñ lay jox di dellu si ci kër gi problème mu dépense bi mi ngi bëgg a tukkal àdduna am na jigéen ñoo xam ne boo demee bokk nañ juróom-ñaari natt bokk nañ juróom-ñaari nat te natt yëpp ci dépense bi lañ ko bëgg a teg maanaam yow liggéeyoo xëyoo fenn jaayoo jëndoo te waxoo sa jëkkër ne ko damaa bokk ci natt boo xam ne damaa bëgg su ma teggee man cee def nangam ak nangam dee ma nattal mu ne la waaw déedéet doo ko wax loolu waaye nag da nga koo bëgg a nag ci maccaan mi maanaam sa jëkkër du la may dara ndax am na jëkkër ñoo xam ne daaw lañ gëjoon a may seen soxna 5000 ba fii may waxee yow moom dépense yi mënta ñàkk dong lañ séq ak moom am na ci ñoo xam ne sax dañuy laaj la joxoon fu mu toll dañuy calcul maanaam démb waroon nga maa jox weccat de ñaata la woon kon boole ci lii mu mat te yàlla xam na ne léeg jigéen ñi am seen yëf yi yëfaan yoo xamante ne ci kër gi lay dellu si te mënuñ koo laaj kenn li nga yaakaar ne aw des la wu dugg ci ñoom duggut ci ñoom waaye daa dellu si ci kër gi am na jigéen ñu mel noonu am ñoo xam ne dañ cay kopp-koppal bëgg caa def leneen lu jëmut ci kër gi bu yàggee muy indi ñàkka ñàkk wóolonte boobu nga xam ne mooy am ci biir kër yi su fekkee ci wàllu dépense it nga am góor ñoo xam ne dañuy bàyyee seen jabar kër gi am na ci góor ñoo xam ne nañ ma baal bu baax a baax bu soxna si tàmbalee liggéey ñu yëg ne soxna see ngi for dara ndax léeg nit am soxna soo xam ne moo la ëpp wërsëg ci misaal li muy am amoo ko muy am amoo ko waaye li ngay am nag mën nga cee yor kër gi dalaa ëppale rek bu doon lim am nekku fi lim am mën nga cee dund mën nga ko cee dundal kon jéem cee dund te dundal ko ci jéem cee dund te dundal ko ci te bàyyee ko lam am bañ caateeg bët boo amee orduna sax boo ko mënee jënd jënd ko boo ko mënul waxal wax ju rafet bu ko jëndee ci alalam yëgal ko ne ko li nga def de lu baax la ba noppi ñaanal ko sant ko ci gërëm ko ndax bu ko defut woon yow lay tegu ci sam ndodd yow lay tegu ci sam ndodd dépense moom mbir la moo xam ne borom bi subxanahu wa taala moo ko yoonal ci ay diggante waaye moo koy yombalit moo koy yombal boo ko seetloo ci ca biir da ngay xam ne nit nit xaw tuuti kon nga ne nit mënu ko xaw tuuti kon nga ne nit mënu ko léeg-léeg nit ne euh, nga xool li nga dépensé ci weer wi ëpp na sa salaire bi ñaari yoon waaye borom bi moo dogal ki góorgóorlu ci kër fas yéenee yor kër gi bo moytuwut mooy ñam yor ba faaw. loolu moom noonu la demee am na ñoo xam ne ci kër yi li leen tax a yaafuus mooy liñ leen yoraale liñ leen yoraale ndax loolu day am ci kër léeg-léeg koo xamante ne moom facture ndox bi lañ ko sasoon di ko fayloo te boo muy tuur sax dañuy couper ndox mi léeg lekk bu ko defee nit ñi toog di waxtaan naan man de diw li muy liggéey xaw ma fu mu koy def ndax moom dara waru ko li ko dara warut moo tax mënta am mënta am dara ku bëgg a dajale dara dangay ngay warloo dara ku bëgg sa wërsëg yokkut da ngay nangoo gàlloo dara fas ko yéenee fas ko yéenee def loolu mooy li nga xamante ne nii mooy tax am jom wala bokk bokk na ci yi nga xam ne mooy tax nit ki am jom ca la nga xam ne moom lay def beneen bi ci topp mooy dëkkiin wu rafet yu ma la doon junju démb te lislam bëggu ko lool ci diggante ñaari way dencante waaw ci diggante ñaari way dencante diggante jëkkër ak jabar kër gi couple bi suñ borom dafa digle ñu rafetal ñu rafetal jigéen ñi rafetal jëme ci góor ñi wala góor ñi rafetal jëme ci soxna yi soxna yi di rafetal jëme ci seeni borom kër di rafetal jëme ci soxna yi waaye doon ñoo xamante ne danga leen di teral doon ñoo xam ne da leen di yërëm maanaam danga leen di ñeewante waaye dangay rafetal ni ngay jëflanteeg ñoom tey fexe ba mbégte di dox seen diggante tey fexe ba mbégte di dox seen diggante moo tax suñ borom subhaanahu wa taala ci bunt boobu da ciy diglewaale muñ da ciy diglewaale muñ maanaam muñ googu doo ko jox kenn bu fekkee ci biirub sëy la waaye da koy def mu nekk baatub muñalante baatub muñalante kenn ku nekk am loo xam ne moom lay muñal moroomam moom lay muñal moroomam ca la yenu ci ay ñëgg-ñëgg ci ay ci ay lor ci ay tooñaange ci ay métti méttit bu ko defee ñu sàmmonteeg loola loola dana doon loo xam ne lu am solo la moom la alxuraan doon junjunaan wa aashiruhunna bil maaruufi mel ni ku naan na ngeen dund ci njekk nangeen dundu dund dundin wu rafet na ngeen dund dundin wu rafet borom bi subhaanahu wa taala tekki ne eh, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al allahu fiihi kasira kathira yàlla nee na nañuy rafetal ni ñuy nekke ci biir kër gi jëkkër jabar rafetalante leen rafetalante leen góorgóorlu leen yokku leen seeni effort nee na léeg dara metti la ci sa morom maanaam nga am lu la soof ci sëy bi waaw nga am lu soof léeg-léeg mu metti lool léeg mu toll guddi yoo xam ne guddi yu yéeme lay doon borom bi nee na muñal muñal boo ma nee muñ moo gën ndax mën naa am li la naqari suñ borom dëxëñal na la ci aw yiwu bari dencal na la ci yiwu rëy rëy rëy yiwu baree baree baree bari loolu day am léeg nga dem ci jigéen ñi mag ñi ñu nettali la lu leen seen borom kër ya doon def tey biñ la koy nettali doon nañ ñu noppalu ñoo xam ne loolaa ngi seen ginnaaw tey loolaa ngi ci seen ginnaaw tey ci góor ñi itam loolu dal la dal leen ci seen diggante seeni soxna waaye léeg-léeg bu fekkente ne yow jàpp nga ne ak mat amut ñaar ñu ànd ñu ne ay matadi day feeñ damay faral di wax ne matadi yi feeñ ñol-ñol ji feeñ nga dóor wala nga saaga wala nga bàyyi mu dem loolu moom jëfewut loolu moom jëfewut li jafe dëgg kay mooy diw jikko yi la amoon maa fexe bam dañ jigéen ju naan sama jëkkër nii la meloon nii la meloon nii la meloon maa fexe ba mu soppeeku maa fexe ba mu soppeeku te euh, kenn attewu leen waaye yaa def effort ba loolu dañ yaakaar naa ñaar ñi bu ñuy takkante mott lante googu la ñuy wuti mott lante googu la wuti xam ne leneen nga dégg kàddu goo mën a wax man koo tontu waaye nga muñ ko nga bàyyi bu jàll nga bàyyi bu jàll ñun góor ñi sëyi léegi léeg boo ko bëggee copier na ko mag ña amee woon ci suñ jamono jii boo moytu du ngeen sëy ñaari weer waaw ndax ñoom dañ lay wax ne la daanu ma wax nit du ci teg baat daanu ma wax sama soxna di ci teg baat daanu ma digle luñ jëfut ñun nag léegi dañ ñaan la nañ ko waxtaane waaw nañ ko nañ ko waxtaane jamono ji loolu la indi di nañ ko waxtaane nga xam da nga koy waxtaane ñoom bàyyi buñ daan dem daanuñu tàggoo dañuy wax rek ne ka ca gën a euh, amuk ubbeeku sax moo naan maa ngi dem bërëb sàngam wala dinaa dem bërëb sàngam waaye am ñoo xam ne lañ war a def ñoom dañ koy def yow nag kër gi tey taabuli saal bi dong boo ko doon àndale boo ci waxtaanut ak soxna si boo muy tuut ñëpp ñëpp dégg leen mun la respecté woo ma da ngaa war a wax ak man da ngaa war a nangam danga ngaa war a mën a nangam ma ne kon ayut ayut bu jamono indee loolu te lislaam dàqu ko na dëkkin wi rafet na dëkkin wi rafet waaw na dëkkin wi rafet mooy eh, na ngeen bàyyante xel tey muñalante tey muñalante tey muñalante tey jéem a teralante rawatina ku góor ki yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ki gën a mat ci nit ñi ak yàlla mooy ki gën a rafet ay jikko nee ki gën ci nit ñi mooy ki gën ci ay jigéenam mooy ki gën ci ay soxnaam waaw góor gi gën ci góor ñi mooy góor gi nga xam ne moo gën ci waa këram mooy ki gën ci waa këram kooku moo gën ci nit ñi gën ci waa këram nag euh, tegtalewut ne xam nga ñun lelek nga gis koo xam ne waa këram dañ koy sikk te fekk liñ koy sikkee moo tax kër gi wéy di doon kër ba léegi ndax dañoo bëgg muy toog di xaxaloo di wax lu ñu lu ñu rut suufeel boppam ba faf ñàkk fayda woyof ba faf doyee di te yooyu yëpp nag jigut boroom kër bu fekkee bëgg na kër gi wéy di doon kër waaye baax ci waa këram mooy li ñu soxla tam am ko na ko def na ko def dëkkuwaay bi na fexe ba dëkkal leen na fexe ba dundal leen na fexe ba woddu leen na fexe ba yiñ soxla te doomu aadama mënu koo ñàkk ci dundam ñu am ko la ca des na ca digganteem ak i soxnaam maslaxa ak rafetal waaw moo tax mu ne teral leen mooy ñeewante leen ñeewante leen àgg na ba ci di fo ak sa soxna maanaam di waxtaan ak moom mag ñi daal nañ ko def ndax bëgg mu yomb tax ñuy mayee doomi ñu jaay doomi bàjjan ndax bëgg fo moomu man am yonent bi alayhi salaatu wasalaam daan na ko def sayyidatuna Aïcha radiyallahu anha wa ardaha nee na mas naa sax di njëkkante ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam ñuy course course ñoom ñaar teg dara ne dañuy daw bu fële ku njëkk jël ku njëkk jël nee na ba njëkkante ba njëkkante eh, nee na eh, mu ma wala ma ma raw bañ demaatee tuuti nee na ay at yu néew ñu njëkkante mo raw ma nga xam ne kon euh, li ma bëgg a wax ca xadis bi sax du jëmmi njëkkante gi ci boppam waaye li ma njëkk a wax mooy wane ne borom kër day oyof ci biir këram borom kër day woyof ci biir këram léeg nga daan gis euh, ñun ca dëkk ba mag moo xamante ne fullaak fayda ji mu yor ak xëy bi mu yor weg gi ko waa dëkk bi di weg waaye bu duggee këram rek ay wi jeex na waaw bu duggee këram rek ay wi jeex na sumi bu ma wékk tëdd gone yi wër ko nga xam ne danga gis gone gu joggi ca biir ba waaw da gone yi joggi ca biir ba ñeedi xëcc sikkim ba ñeedi di fel dàll ya waaye teewul nag saa nit defee naka su dul noonu bu nee tuub kër gi ne selaw boo doon dégg weñ wuy naaw nga dégg ko ca yooyu kilifa waaw yooyu kilifa nga xam ne am am ba demewut noonu waaye fulla ja ak fayda ja ak mën a yor njaboot ak jubbanti leen beneen affaire la waaw da nga leen di wek te doo leen ragal waaw da nga leen di wek jox leen cër lool te doo leen ragal ni ñi ragale gaynde moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam di wax ne ci wàllu fo mépp fo moo xam ne nit ki da koy fo li ci ëpp ak neen la maanaam fo mu baaxul la ba mu des ñett ba mu des ñett mu ne ki nga xam ne day fo ci ak fettam maanaam xarekat yi nga xamante ne mm, maanaam soldaar si tey boo demoon ca Kaaba ñuy sànni ay ay mbir wala ñuy kursu di tëb di ploncer wala ñuy rawante wala yu demee noonu ak ki nga xam ne day wulli aw fosam maanaam aw fos bu fekkee euh, fosu góor la balañ koo mën a takk sareet wala ñu koy war faaw ñu ñu tàggat ko ndax jamono ji ñu koy njëkk a war da ko du tàmm kërëb kërëb jaag tëll tëll joojee nga xam ne xeetu rawante la mel ne kuy fo loola dagan na bi ko ñetteel nag nee na fo mi nga xam ne moom la nit di fo ak soxnaam waaw fo nga xam ne moom la boroom kër di fo ak soxnaam ba noppi góorgóorlu nag ba teg ko ci dëgg góorgóorlu ba teg ko ci dëgg di waxante dëgg waaw moytoo moytoo lorante loolu daa bokk ci li nga xam ne day dundal mbëggeel daa bokk ci li xam ne day dundal mbëggeel am na diggante yoo xam ne moom dañoo ànd rek waaye mbëggeel dee na fa bu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg maanaam malgré nii rek ñu wéttalante ndax sëyee xew ñuy say waaye kàddu kàddu yi nga xam ne moo war a dundal mbëggeel kàddu yooyu amatu fa waaw te te du dee maanaam wërta dee nobel moom mën naa jeex nobel mën naa jeex waaye bëggante dëgg te muy dëgg moom du jeex mag nag dana toll foo xam ne dootu ko manifester ti ni ko gone di manifester waaye du te mu gënal la ñëpp nga xam ne boo ko gisee sax sa fit bi dinaan tës waaye du doon tiitaangeeg nja maanaam njàqare waaye tiitaange gis loo bëgg la gis loo bëgg la gis naa ay boroomi kër yoo xam ne ñoo seeni soxna amatuñ sax tur wu ñuy woowantee ndax soxna soo xam ne daa rëy a rëy rëy ba waxuma la sax mu lay wooyee tur yi xale yi di wooyee de wala yi mag ñu baax ñi wiw ñi di wooyee naan la sëriñ bi wala ñu naan la ku baax ki wala alaaji déedéet ñoom yow lañ lay wooyee far yow yow nangam yow nangam nga xam ne mën ngaa toog ba jóg fa doo dégg kenn tudd ci sa turu moroom du ci turu wu koy neexal du ci turu wa ko ndeyam ak baayam tudde woon waaye yow nangam yow nangam yow nangam waaw mm, ak rëy rek rëy rek ak ñàkk jëfandikoo kàddu yu teey yi nga xam ne lislaam dafa bëgg ñu di ko jëfandikoo ci sëy kàddu yi nga xam ne kàddu yu ñaaw la nag wala wax joo xam ne wax ju ñagas la loolu daa bokk ci li muy indi mooy ak noonoo ak noono ñaar ñu ànd wax ne dañuy sëy ba noppi doon ay noon doon ñoo xamante ne dañu mujj sawaraw mbañeel mooy takk seen diggante sawaraw wuute mooy tàkk ci seen diggante xamoo luñ dëppoo ñoom ñaar waaw daanaka amut amut lenn lenn lenn loo xam ne mën ngaa wax ne lii ci lañ juboo moom lu kii bëgg rek kee bañ nag bañ na la ca des liñ bokk bëgg sax buñ ko waxtaanee àndandoo faf ko bañ àndandoo faf ko bañ loolu bokkut ci li nga xam ne mooy dëkkiin wu rafet wi nga xam ne moom la lislaam bëgg moom la lislaam bëgg te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu da koo jàngale ba noppi joxoñ ko ba noppi joxoñ ko bëgg ñu sàmmonteeg dëkkiin wu rafet woowu mu ne maa ngi leen di dénk ci jigéen ñi aw yiw maa ngi leen di dénk jigéen ñi aw yiw ku wax ni jigéen ñi matuñu ñu ne la lu tax nga wax ko waaye ñaar ñu ànd ren ba déwén dañoo tanente ñaar bo ànd ren ba déwén dañoo tanente jigéen da daan nangu ku ko yilif góor itam nangoo mat kilifa moo xam daa bari alal moo xam bariwut alal ndax loolu daanu def jeexital ci sëy bi waaye ki nangu ku ko yilif dana neex a yilif ki mat kilifa yitam ku yilif doo sonn ndax dootu seere ay détails bu ko defee ànd ci njekk mooy li gënal borom bi subhaanahu wa taala bu ànd ci njekk mënta am tàqalikoo ci nam gën a rafete yit mën naa am yal nañu yàlla boole sàmm yal nañu yàlla boole jéggal yal na yàlla barkeelal leen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 ci seen jotaay bii di almisbaax assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu